dafa amu kër danger dëgg la jamono ji moo tax yëgle kaay groupe Futurs Médias bi xëy biral de ne day ñaareelu vague covid bi ma ne day dana nekk dëgg nag li ñu wax kii viif njàqare am na de juróom-ñetti doomu aadama ñoom la seen bakkan wadd ci njeexantelooy bés bi di wékkan bi ma ne day moom jëwriñ jooju Abdoulaye Diouf Sarr am na cëgul guyam de ma ne dana am am ndaje boo xamante ni daar daar dañ ko amal ci wàllu nag urgence maanaam mbir mi ak fi ah a a xóot nag ci li nga xam te moo di yoon wi ñu war a teg ndax mbas mi jamono ji tiital na leen te la ca gën a doy waar mooy laboratoire yi ñoo daal am problème ñoo daal di nërmilu tey ña ngi ca yëglu les éco yéen kaay ne waaw tiitaange dafa jot ndax nag ci diiru fukki fan dong fukki fan dong ñu am lu jëm ci nag junni ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñett 1093 la ñu enregistré ma ne ñaar fukk ak ñeent seen bakkan wat la ilaha illallah wa inna ilayhi jox kàddu mu ñu njaay mi fi nekkoon njëriñ wàllum caada ministre Mbaye ñi njaay wax na de ne day li mën a saafara loole mooy nag ñu indiwaat ab couvre feu déet waaye njaay déet a ñi nga xam ne ñoom la ñu hébergé di cas contact yi jamono jii de agent yaa ngay laaj seen xaalis agent yi nga xam te ñoo leen di dalal seen koppar la ñuy laaj ngir ñu fay leen ko le quotidien yéen kaay de tiitaange fës na ci ay chiffres laa la wax lu ci mën di am daal mooy fi nekk nii lenn rek rek moo ko mën a saafara de muy indi vaccin bi yéen a ne ban vaccin ban vaccin ban vaccin journal groupe des médias bi wax na de nee nag signalé Sénégal ñoom teel nañoo yëkkati moom vaccin yooyu ngeen tudd bu mu jëm kaw de lànk kandaara ba tëdd sa naaj wala ñu def ku leen di vacciner ay cobaye duñ ko def tey duñ ko def ëllëg bañ nañ laa wax yéen am ful la nag <laughs> ma ne de vox loo ci mën di dégg Ablaye Bousso docteur wax na de docteur Ablaye Bousso ko béboo ñu waajal suñu déet waay Bousso li nga wax moom ëpp na di ma ne maa ko wax il faudra nous préparer à une troisième une quatrième vague ëllëg oh la Sénégal ne loo ci mën di dégg de mooy fi nekk nii mbir yaa ngi bëgg a dégg dégg day de ndax faatu gi ñoo bari jamono ji tey ña ca am ay cas bëri ma ne huit décès juróom-ñett ñaan téeméer ci ay nouveau cas la ilaha la ci Covid 19 bi ma ne mbir yee doy waar li doy waar kay ba tey mi ngi ci réew Sénégal de démb lakk nga amoon. xawtul caaf xam tege da nga yàqute maafe dootul neex ma ne day xawtul làmbaay ñaaw lànki din kaay ne për bëla dëgg la ca nga jaga ma ne day démb de musiba naaru laay si nag ak ndell ci ab teenu gaz laa la wax la am na ku ceeg blessé blessé bu graw sax ma ne day machine ya moom waxaale wuñ ko daanaka ab doom la dem le kor jiyee ne kaay ne tiitaange kay war naa mën a jot lakk googeeg teen ya ca nga jaga askan ba rek a ñëkkatit ndax xoola ma li rek Sénégal ngir am ay jumtuwaay yu mat sënkam taxaw askan ci wàllum lakk sax la leen të Tine nee na day à toute chose malheur est bon déet waaye waaye de loo ci mën a dégg mooy lakk gi fayagul de caaxaan fayu ko ça prend du temps waaye temps bi dialogue bi amoon daa mel ne temps ba yàqu na de les écu yéen a kaay ne de lii nga xam te moo di dialogue national bi dafa mel ne lépp dafaa joxe tàbbi géej de ma ne Mamadou Diop Decroix la jox kàddu croix na lu jëm ca dialogue ba dara la ca gëmul laa la wax tey jàpp na de dialogue bi national bi du woon dialogue de wax yi naxa sa gandax la Mamadou Diop Decroix mooy wax ba tey ñu fekkaat ko ci la Sénégal mu ne nag mi président Macky Sall ak kii jëfam dafa mel ne